asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu. ñu ngi siyaar wér di màggal. tey nag ñu ngi fii fi ñuy wax Touba benn barab. ñu seet ci woon fi kilifa ku tedd gii moom nag yëngu-yëngoom ak doxam ak lépp du ko def. te ñooñu nga xam ni ñoo leen tuddee ñoon ci wooteel yàlla tey nag ñu ko fekk fii ci Touba benn baraat ci kër wóolale bu naan Cheikh Idrissa Diouf feeñ ko fekk tey moom nag dañ ko doon laaj mbir mii ndax sëriñ la ndax boroom xam-xam la kon dañ ko laaj mbir mii nga xam ni dégg nañ ci ay riwaaya ñu ne mbir mi kat moo tax jëlee ko dëkk bu sell boobu ñuy wax Touba kon sëriñ bi dana doon laaj mbir moomu nga xam ni moom ngay wooteel te ku la xool ah amaana mun naa bay fekk ni mbir moomu kat dëgg la ndax mbir dañuy faral di wax ni bu dëggoo xoolal ca koy dund baa nga xool ca koy woote kon bëggoon nañoo xam mbir moomu mu jaral la Touba ak ni mu neexee Touba bërëb bu sell la ci ni ñu ko waxee Touba am nay borom xam-xam yow nag nga jaayam seen kaw indi xam-xam boo xam ne amaana du ñu néew fa mais amaana dañ naan kon dañu koo jotewul kon sëriñ bi ñu ngi lay laaj xam-xam boobu nga xam ne moo tax nga dëgër ci waa Touba jël ni dañ lay génn seen bërëb. maam dëgër gog dañ bëgg xamni mam maam lan mo la may dëgër ki kilifa gi ñu lay delloo kaddu gi la laaj lan mo la may dëgër bismillah أعوذ بالله السميع العليم من ñu fay bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Ya na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka Ya wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu Ya iyaka nasta'in. Inna sirata mustaqim sirata mustaqim mustaqim sirata mustaqim sirata mustaqim sirata mustaqim sirata mustaqim sirata mustaqim sirata mustaqim sirata mustaqim sirata mustaqim sirata mustaqim sirata mustaqim sirata mustaqim sirata ginnaaw ba ñu sant ak ñoom ñëpp ñu ngi ciy gën di nuyu sallallahu alayhi wa sallam di delloo nuyu di nuyu ñu jox muy asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ah mbir mi yàlla rek la ci njiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yëngu bi ñuy yëngutu nag ci yàlla ak ci roy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ñu boole topp Xaadimu Rasuul sallallahu alayhi wa sallam ndax ñun ñoo ngi judd dëkk bu ñuy wax Lukman Dieng Lukman Dieng waaw ñu ci kër Kilmaxa soriwut kër sëñ Gana gi ñuy wax mooy xalifa général bi mooy. xalifa général bi waaw ndax ndukkumaan googu ma juddoo ab dëkkam. voilà juddoo moomu moom moom sax si Muxtaar. booba sëñ kër Gana. waaye ndukkumaan laa man kër. fa la ay soxna yu ay doomam suñuy jarbaam la xamal nañ kon ñoom moom dara ëmb ko ci man yàlla dogal boobu ma fa juddoo dëkku yàq du aan ci fa sama bàyyi dëkk foofu tam ci ma tudde muy sëriñ jéere jëg moo ma jàngal alquran yaa dara ci boobu alquran nekk fa ci daara bi ci alxuraan ba du ma amee lu mat ñaar fukki ci laa fa jóge dem Mbàkke Bawol foofu laa nekk sëriñ jeere jëng moomu moom laa jëkk yëkkati ak bi jox ko ko ci moom mm-hmm. ngir yàlla mm-hmm. di sa turandoo di sama turandoo tawru monta sax maa ngi wax ne moom laa ko xamee. waaw saa bu julli ma saa dugg ñu war ko monta kon ñu ko. jógee dem Mbacke moom ginnaaw bu mu fi jógee. sama njaay boobu ma fekk Mbacke. moo yóbbu Daaru Salaam. jébbal ma ku ñuy wax sëriñ Abdourahmane Mbacke. naa ci këram ñeenti at. fu mu jëm ñooy ànd. bu toogee maa ngi toog ci wetam. luñ ko jox tey maa ngi koy dégg. ñuy ànd ba moom itam ni mu làqoo mm-hmm. bi may jot xam-xam bii ngay wax la moom mi ngi fi mm-hmm. moom sëñ Abdourahmane mm-hmm. bi ma jógee Mbàkke boobu sama mag moo ko jël ku ñuy wax Cheikh Dow indi ma fii Dakar maa ngi def commerce marché di port maa ngi jàng xasida di ko gëstu ba sëriñ Abdourahmane moomu saa bu ma saa ñëw ci moom téere bi may def naan ma xool ko ma jël ko jox ko ko xool xool xool ba mu daj mu delloo ma ko ba bu ma ko delloo daa di wax toog ne sëriñ mii de ku yeewu la moom sëriñ Ibrahima Ndar mooy ànd ak mu nekk Dakar rek xas bi ci xasaay ci xasaay bay dem jàng ci ndax daay mu bokk Ndakaaru fasaa moo tax ma bokk ñu ñoo koy wax day la Masaalikul Jinaan ku ñuy wax sëriñ Xaadim Ndooy bokk sëriñ Maama Gay moo ko jiitoon mu bokk sëriñ Xaadim Ndooy ñoom bokk ca sëriñ Lappa Jeng doomi ci ma moom di jàngkatu xasida parce que diggu ma ñor bu ma xasaay ñor sama bokk seen daayira boobu ndax daayira bi ñu kenn ku ne booy ñëw da ngay indaale ñeent fukki dërëm ma leen kon bu leen ma ñu ànd yëngu may aw ngir yàlla mm-hmm. bëgg sëriñ di ànd ba ci suñu daayira boobu mm. ku ñuy wax Serigne Khadim Ndoye mm. moom daanaka daayira bu moo ko jiite moom la ñuy wooye léegi sang moom la ñuy wooye sang Ndoye nekk nekk tabla moom moo jógee fii mm. dem dëkk bu ñuy wax Mboudaay Séeréer dafa doon sàkku ji ñaan ba mu demee te ko doon ñaan loo kam doon ñaan lool moo woo benn Baye Fall ni ko tàngalal leen ataaya Baye Fall ñu koy maam Thierno maam Thierno leen tàngalal ataaya waaye di wax ne ñu fii di ñaanlu ñu lay sang ci ay xërëm ak yooyu jàkkaarloo sa borom ko gën di tàngal rek di ko wax ba yàgg suñu xaalim ma yow loolu fu mu am ci àdduna ci àdduna ko mm-hmm. sëñ baa ngi fii boo bëggee yóbbu la mu ne booba nag ci mu lañ koy wa mm-hmm, mm-hmm. moo jiite woon xëy na boobay lekk mu daal. waaw mm-hmm. moom it ñu jàng sax waaye dañoo gudd ci yoon. waaw ngir lan li muy jaay commerce la fa dugg ci. bi mu déggee maam Thierno baat boobu mu ne ko loolu fa maam mu ne ko sëriñ baa ngi bi ñu noppee maam Thierno moo dem ba njëkk ñu wax sëriñ Souleymane Niang. donc mu daay boobu mu ngi dàq sëriñ mon père soleil mon père Souley moo dàq xiram wax maram bu daay ci bu daay bo boo demee def la lislaam fa def damu jël xëwa fa nekk sëñ xaalim doy mu nekk fu sëriñ bi ne maam ceekaanam ba ci sëriñ ba sëriñ bi ne kéro sëñ soleil ci bobu moko sumil baxal da ba mi ñëw ñepp nu murit wara mel ci ko mel na ni ku ko mo xamni ci kii bi sëriñ tuba ba légui ba légui ku ko gis xamni mom la sëriñ tuba ko yóbbu foofa bi mu dikkee nuyu Serigne Souley ba noppi mu jógee ak doon ay tàgg wax ko Serigne Souley ne ko xanaa xam-xam bi Serigne Touba defal ci Cheikh Ibrahima Fall jotagoo ko. waaw. Hmm, Serigne Sang ko muy lan mu ne ko muy egg ca Serigne Sang Serigne Sang doy ne ko déet jotaguma. Hmm. Cheikh Souleymane ñaan xamal ne ko loolu laay def ci nit. Serigne bi laaj ci ko. Hmm. la ko jëlee mu ne ko ci Cheikh Moussa Cissé. ci daaru kër Mor Kuréja mu ne ko Cheikh Moussa suñu jëlee xam-xam mu ne ko ci Serigne Touba. mooy Serigne mooy Serigne Touba Serigne Cheikh mooy Serigne ma mooy Serigne euh, Mamadou Fidji sa baay. kon Cheikh Moussa moom Cheikh Cheikhaat la. dañoo Cheikhal baayam. ko jox ko Serigne Touba def ko doy ma ci sa bopp. Serigne Touba ko Cheikh Moussa moom li nekk mu def ko ci Cheikh Souley mu def ko ci Cheikh Souley. Cheikh Souley def ko ci Serigne Khadim Ndoye moomu. Serigne Khadim Ndoye mu ñëw ci suñu daayira wax ko ca. liñ daan jànge xasaay mu ñëw di ko fa wax. ñuy ànd di jàng xasaay muy waaraate di wax xam-xam bi. di ko Serigne wax ci Masaalikul Jinaan. amaa dawaa mu sikri fa huwa akbaru min kulli maa kaana muriidu hadde holto sayi ko bila israri wala o mbawi mi sawi kar sëriñ ɗo diko diko diko rek ba ɓen ɗo yimɓe fi ɗen ko sëriñ balla faali jeng jogotan jagal kasayit gam moɓɓune lappe moom sëriñ lappe jeng nga xam ne fijmatunde ko jur moo doon jàng jàng ya kenn ku amee jàng ñëpp dañu ànd jàppale la keneen bu amaatee ñu keroog bañ demee daaru sëriñ dooy wax fa ne murit yépp kenn ku nekk na jàng Mawahibou Nafih def ko ëddi Serigne Touba dama jàpp di jot ko bu ñu ko defee dana baax waaraate fa duggaat xam-xam bi baatu laa ilaaha illallaah wax ca ba ni ko Serigne Touba tëree ci masaal yi xam ni nga koy toppee ba àgg ci yàlla bi ka bi laa ilaaha illallaah wal muhtadi muhtasun bi Allah wa in takun muhtadiyan fa nafi mm-hmm. aw laa maa tax si yaa u xayr mm-hmm. bi ka bi laa ilaaha illallaah boy mun tay tane muxtas luñ bi ala loolu yoon ma ñu tuba ni bo tàmbalee jëm ci yalla ñu gëna yel war ci yow moy ngay dakk ak saxal mm-hmm. loy dakk ak saxal mu ni lu yalla ngay dakk saxal yalla yoy ci lokay dakk mu ne ci la ilaha illallah bo di wax la ilaha nak ba egg ci egg day talu kay ba moy ci yalla nga ni di wax la allah ni Xaadim mooy waaraate fa waaraate fa ba joxe kaddu gi ñu jang jang jàngi ba suba ñoom ñu ñibbi si Dakar maa ngi sëriñ Lappe yu jaar kër daal dëkk boobu kër baay boobu foofu laa nekk. Mm-hmm. bi ñu ñëw coole ma ne sëriñ Lappe. sëñ Xaadim Ndoye sëriñ Ndoye bi ko mm-hmm. mm-hmm. ci laa ilaaha illallaah bi ma ko waxee daa doon dem fan ma ne ko mbóot mu ne waaw. sëñ Lappe ne ma man sax loolu la ma ko jox ma ne ko jox ko sëñ Njaay. ma ne ko bu ñu àggee naa ko ñu jaar so dëkk soo ko ba ñëwaat Dakar bi ñëwee ci daayira bi ma dem ci moom sëriñ Xaalim Ndooy ñoo ngi fi jóge ku gi di jàng ay jàng ndam ndam ñu di ko siyaare ji muy waaraate ci oto bi ban àgg ndam ndam ban dale ba rek ma woo ko ba mu génn ma ne ko leeral ma li ngay wax mu ne ma baax koo xam ne bu xasee tàbbi ci yow du too bon ba keroog ngay tàggaa ma ne ko loolu ci noo koy ci loo koy defee ci nit bu demee ci baatu laa ilaha illallah ma ne laa ilaha illallah lu mënul amul. foo ko jëlee mu ne ma ci Serigne Souleymane Niang ma ne ko fu mu ko jëlee mu ne ci Cheikh Moussa Sy ma ne ko mu ne ko mu ne ko ku bëgg a jot nooy mu ne ma da ngay mu ne ma boo bëggee xam moo moom boo demee ca téere ba Serigne Touba sant maam Jaara sëriñ Mor Boye Diassy de Mokhtar moom yee moo jur Cheikh Moussa Cissé mi ndax man booba kenn ku ma mën a jëme fenn fu mu ci sëriñ Tuubaa tëgi ndax wóor na ma ne jàpp naa ci sëriñ Tuubaa di liggéey fu ñu daan woote ay xel kooba Tuubaa bella fu ñu woote dem naa fa booleeg jànq saay bi wóor na ma ne am naa ci sëriñ bi te yëg naa ko tëgi boobu kenn mënu maa jëme fenn fu ci sëriñ Tuubaa moo laaj ko fu mu ko yëg sant maam jaare gi su Mor Boye Diassy mu wér ma fekk ni li ci sëñ bi ma ñëw Ndakaaru jënd sama ñu um koor ma dem fekk sëñ Xaadim Mbay ba muy liggéey ji toolam ñu ko mbir ma laa jël mu ne ma yàlla bu jox ma baatu laa ma di ko tudd ñu ko sëñ Tuubaa waxee saxal amaanaawu sikri foofu ak ba mu ku ñu maakaana mu ñu ko saxoo tudd yàlla moo gën a màgg ci ki jëm ci yàlla lépp lu mën a bare la wax mm-hmm. sëñ Tuubaa quoi te loolu nee na xam na xulbu taaliki bi laa itraari wala ubaali bi saw in kaar te kaw laa koy wax yéen mu ko dama ko biral te fàlle mu ñi ma bi ba yëg ci baat bi loo xam ne bi ma di kaate sëñ xaarim doy dama ko ne lii buñ ma ci xabalu tan dara sax doy na mu ne ma dañuy toog rek dañ xeeñ waaye ñëw ma di ko tudd di ko tudd ba dem ci moom ba ñu ma fi toll mat na ci yow te roog fa ma dëkk la ma fekk leeral ma xam-xam ba gindi ma ci sama borom wan ma sama borom ba ma gis sama borom jën gën nga tëbleetu ma ko jaawale wu ma te it loolu sëñ Tuubaa di loolu mooy sëriñ Tuubaa lu ma di ko wax ci mooy sëñ Tuubaa loolu rek mooy la waaw képp koo xam ne am na borom bu yàlla mbaa soppi bu Muhammad ne leeral bi sa dund yàlla ko ci daa ko bind yaa ma nekk ci leer ba leer boobu leer na ba ma leeree nag ma topp sëriñ bi di ko liggéeyal ko di ko liggéey ba mu yëkkati ma ñooma sëriñ Souleymane ñaanoonu mu yóbbu ma sar saara ga sëñ Cheikh Moussa doon terbiya terbiya ma fa ba yóbbu ma ci mu wàcce ma jox ma ci li jaaba ne ma ko ma di ko Touba boobu suma yaay moo fa nekk ma indi fa sama soxna mu dëkk boo xam ne dañ doon def ay xayma ku nekk samp sa néeg bu ñuy na nattal sa paak sama yaay dem fa di liggéey ba dem na nattal ko paak mu joxe ca xaalis ma ñëw dëkk fa moom mu jox ma kër ga ma nekk fa moom ak sama soxna yor li nekk ci baatu laa ilaaha illallaah di ci woote mm. bay di ma wuy si mm. ku ñëw wuy si ma jox la laa ilaaha bi nga di ko defee di ko sëñ Tuubaa digale woon mag bu yokkoo xam ko bu koo xam ko ba sa sikk yépp dañ ma xamal la sekk sikkar mu wóor na ne lii mooy mooy yàlla taalibe yi di bàyyi di ñëw da li may def ci nit moo ko li may def ci nit moo ko defal ci garab ko wër ko te ñu fiñ ko jóg te def ko ci nit moo ma gën a yomb julli ñaar rakka ñi daan ñëw ci man xaw ma ci kenn leer boobu mëneen ko indi bañ leen terbiye di leen taraxee di leen tasee def ñoom yàlla xamal leen yàlla bañ xam ko leen ko bañ gis yëg leen ko bañ yëg ko tuuti ñu ko bokkaale tuuti ñu mooy yàlla tuuti ñu def lu haram te ñu ngi def lu dagat ak lu ñu soob lépp bàyyi luy suba lu haram dëkk ba booba ci waa koñ ba ñëpp xam nañ ko borom xam-xam yi fa nekk ñëpp xam nañ ko daara ya fa nekk ñëpp xam nañ ma sama kër ku nekk sëriñ bu ne lal na fa kaay bi la fa laajte parc boobee falaa dekk di woote fukki at ak juróom nekk naa ko fa di woote di ñëw ba benn bis ma nekk ci kër ga am ku ñëw comme ni ngeen def di laaj lan laay woote fii ba leen yàlla laa fi woote jaare ko ci baatu laa ilaaha ni ko sëñ Tuubaa doon defe noonu laa koy defe fii loolu nag murid dañoo jàpp ne kenn waru ko def ñoom ñoom ci dégginu comme maa ngi woote yàlla damaa gëmut sëñ Tuubaa ah, ah lii de moo ñu boole hmm? comme maa ngi woote jëme ci yàlla hmm. kon di gëmatuma sëñ Tuubaa loolu hmm. comme weddi nga sëñ bi loolu lañu wax man leen nag lii mooy dëggal sëriñ bi li sëriñ bi doon def Touba fii taamu sàcc Touba ñun ñëpp la lañu war la ku fi nekk ne nu bëgg na sëñ Touba nekk di fi nekk jiwu ndax sëñ Touba ku ñuy la ndax daa roy Rasulullah ba doon ko hmm. kon te ñun kat dañoo war a roy Sëñ ba doon ko hmm. liggéey bi mu fi doon liggéey moom la war a liggéey noonu hmm. kenn dégg doon def koñ ba ma dëkkal ma yàlla ñoom ñëpp ma xam borom jàkka yi fa nekk ñëpp ma xam borom daara yi ñëpp lañ doon ñëw ci man may dem ci ñoom ba ci bañ ñëwee kooka rek ba mu ñëwee ma nekkoon yàlla ji laay woote ma ne kon yow dangaa wut weneen yoon ma ne ko yoon yoon a fi am waaye ñun mu daal dem ñu koy wax moduloo jawbe waaw moduloo jawbe moomu ëllëg sa mu ñëwaat fa ànd ak keneen daal ne ma kii chrétien la daa bëgg a dugg ci li ngay woote ma ne ko ñun xamuñu chrétien lii rek lañ soxla waaw te fekk day moom day cooy dama yàlla xamal na ma mm-hmm. ma ne ko lii wax ndax dañ ko wax ci kanam sëñ Saliou mm-hmm. ndax sëñ Xaadim doy mu ànd nañ ñoom moom ci sëñ Saliou ay yoon siyaare ko sëñ Saliou dëgëral ñu ci dëgg boobu wér dul baax ba ci koom di billaahi walaay tëral di ñaan ba gars yi dañoo ndax xalil ñang lafaatal xalil ne ko ku bëgg yàllaa ngi nii sëñ Saliou jël ba tëral ci koom ba ni fa jógee dañoo daan na ko jox sëñ Mor sëñ ba jaar fay nekk ni jàkka ja moo fay noddu fukki a ak juróom mooy yëkkati baat laa ilaaha illallaah kooka nekkul ci caaxaan moo ànd na man ci laa ilaaha illallaah ji ko ci yàlla des na yàlla bu gër xam yàlla mm-hmm. mm-hmm. mu daal di dem moom ah seen jaar bi ñoom nee nañ mooy Modou Lo Gaaw mm-hmm. suñu nee nañ mooy di daal ci laa nekk mooy sëñ Tuubaa mooy wane sëñ Tuubaa bu gën wane yàlla wane nga sëñ Tuubaa ku wane sëñ Tuubaa wane nga yàlla duñ leen tàqale waaw ñoom nag jàpp ne kon man damaa weree yoon bu bokkut ak moom sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa mooy laa ilaaha illallaah mbooloo mi nag di ñëw ci man sëriñ yi kii nag kon day woote beneen yoon ndax gisuma benn sëriñ bu ko fay woote nag Tuubaa benn sëriñ bu naan ñu leen ma yóbbu ngi nekk ci yàlla sëñ Tuubaa ko fa waxat gisuma ko ko fa waxat seebo saa ko waxaat nu wuy ji ko yóbbu nañu bay egg ci yàlla taalibe yi ñëw nag ah, kooka dem ba benn timis genn timis ma jógee kër sëñ xali ñang ñëw sama ëtt maa fa defoon genn njowaan dafa mel ni mbaaru mag sama ginnaaw tuddi ko mbaaru sëñ xali bi ma dikkee rek fekk ñu taxaw ñu naan sëñ bi nekk ñu ngi gaari benn poos man leen ndongali daan yi ñoom ñëpp njaati may somb rek yenn ma rek sànni ci oto billaay wallaay ku ñuy wax Modou Lo Diawbe. Mm-hmm. moom laa ci xam turam. nee sëñ Modou Lo Gawal ñëw. Hmm? waaw maa ak ñoom ñuy door ak a jog gi lu ne def nañ ma ko lu ne def nañ ma ko bañ ak bi ñu jub gendarmerie ñu daal di bàyyi tuur yi. Hmm? ma wàccee. si gendarmerie gendarmerie boobu. ku ñuy wax Diallo moo fa nekk. Hmm. daal di ma fay wàcc. daa jàpp moom ma fanaan foofu ba suba. jàllo xëy si ñu ni ma yégal ci kaw ma yéeg ci kaw ma toogee ak jàllo jàllo ko moo gën gaa yooyu jàllo leen gën a jege yàlla parce que jàllo ba di kee toog taw ñooy jàkkaarloo ma ma ne ko yooyu jàllo mu ne waaw ma ne yàgg naa dégg ci waaye yi lu ñu lu ma ne ko gaa yi de yàlla di wéetal yàlla te ñoom ñu maanaam ñoom suñ tubaab lañ ñoom ñii daal mënul woote dañoo déggante te ku wa woote ci yàlla wax ci yàlla da ngaa weddi sëñ. waaw ah, nee nañu ko di wax ci yàlla jëmee ci yàlla da ngaa weddi sëñ Tuubaa. loolu wax de. loolu tey. loolu moom yoon bi ñëpp ko xam. Hmm. fi mu nii boo demoon ci sëriñ bu mu mën a doon daje faak mel ni mbër mbër maa lay jëkk a dugg. Hmm. boo demoon daje faak ak boykat moo la jëkk a dugg ñëpp ko xam. wéetal yàlla taw yit googu nag biñ ma yóbboo nag tànn mooy jàll laaj ma. ma ni ko nette di ko waxal ci laa yàgg mu daal ni ma xaaral daal di woo beneen tàndarma di ko laaj ko tàndarma boobu di ma laaj ci laa ilaaha ma di ko waxtaan mu di ma laaj mu di ko bind ba mu digg ma yéen dañu leen tooñ allahu ma ne ko ci lii lan ma nu kenn fasunu kenn fenunu kenn nanu sàngara tuxunu póol jaayunu yàmbaa ci laa ilaaha illa la ci la ñuy woote dëgg la wér dëgg la wér mu daal koy bind ma ñu di wax <laughs> sëriñ xaadim ndooy bi mu ko déggee mu ñëw jóge Dakar ñëw fekk ma ñëw ba man ma leeral ko ko mu daal di ànd ak man ak sama benn taale bu ñuy wax Seex Wàdd keroog bi ñuy dem ñoo ngi yor kaamilu alquran yor masaalikul jinaan yor doolu boo xam ne ay mantal lay sëñ Tuubaa tàgg Rasulullah bañ demee jëkk sëñ Mawlo jox ko kaamil bi ak masaalikul jinaan ak doole boobu ne ko lii mooy suñuy bagage li ñuy waxtaane loolu ci laaj ñu wax la ko lu mu ñu laaj ñu ko wan ko fi ko tubaab Tuubaa ak fi ko alxuraan la ban sëriñ la sëñ Modou Lo ñu nekk mu di ñu ba ngoon wan bi nga xam lettre yi nga xam ne sëñ yi moom lañ daan bind ba siyaare hmm. ba nag wan ko ko mu ne lii xaw ma ko wan léegi demal copier ko dinaa ko àggal ci ci Tuubaa yëpp ma dem copier ko dañ sàng jox ma ko dem copier ko di ko jox ko ko ñu di seyal ne mu téyal nee na ko leeral ci Sëñ Tuubaa ndax nee na moo oh, euh, na ko jàlle si xamul ne nii la demee ma ne ko nii demee waaw mu bàyyi ñuy dem waaye bàyyiwuñ dañuy wax loolu ci kaw dañ ko wax rek rek waxaa ilu waa waaw waxaa ilu waa rek ma ma dem daara nekk fa di woote yàlla ñuy fexe rek am na ñu nga xam ne ñi ngi dëkk ca koñ ba ñu tilim duñu jaamu yàlla xamuñu julli xamuñu koor deluñu baax saa boo waxee dëggu yàlla seen xol yi tànn mm-hmm. ñu jokkoo ñoom ñuy dem foofa di wax lu dëgg mm-hmm. xam nga rek yaa la yow nga daal yonent bi sallallahu mm-hmm. ah, di fexe di wax lu dëgg di yàq ku ñu dugg ma toog rek jàpp ci yàlla toog rek nekk ci yàlla ba benn bis ak timit jotaat ñu bisu alxames ñuy daayira taalibe yëpp ñëw keroog juróom-ñeenti taalibe nga fa ak sëñ taala bajaar ak mat ñu nekk fukk ak benn xale taxaw di yëkkati baatu laa di yëkkati baatu toog déglu ba yàgg na ñu gis benn oto boo xam ne ñu mi ngi solu mat fanweeri nit mooy oto yi ñu ay rib amul sax ay këyit mhm. ñoom ñëpp ñu wàcc mhm. ñu yor ay yar ñu yor ay yet ñor yor même ñi maati nit courant ñi bu di ñu di rek ak sol ma xamne ñom man xalé bu kenn yëngu bu leen doon ray sax dé leen bu kenn fay bu kenn fay man dia mo yoy buñ toñ buñu fayu buñu xëccu nañ sax tabiya hmm. man bu ngeen bu ngeen bëgg rek dem leen di bu ngeen man def leen hmm. señ taala mo daal leen ko kenn do na mo mag la hmm. ñu taala ba dal taala ba dal mo mag la mag la

nee na wax nga ne maa ngi ci nee daa mujj moom tukk sama kanam ma dimbali ko ci bopp ñaanal ma ne ko yow gis nga wax di ñu dem leer mu ne ma li ngeen wax lépp dëgg la suñ ko soobee daal mooy naka suñ taal daal laa ne bu leen ko dóor ñoom ñoom ñuy dóor xale yi di wax laa ilaha illallah pare buñ ci dóor nga ne yéefar ngeen ci laa ilaha la ngeen di dóor te ay yéefar lañ laa ilaha lañ ngeen ñuy dóor ak xale yi am na ci koo xam biñu àgg fu ñuy wax gaar bu ndaw mm. marché bu yàqu koo xam ne bara bu bëri la faral ñu wàcc kenn ku nekk dañ lay tëral nga defee kii téye fii kii téye fii kenn di dóor. bañ doyal xale yëpp. ñu dina dóor yi muy attaale billaahi wallaahi taala ma taali man de nañ leen nag. yow la dimanche courant ak dimanche courant. waaye yàlla itam dafa ñoo far parce que yiñ doon dóor ñoom ñi ngi dégg yëngu yi waaye yëguñu ko. keroog loolu ñu yor di ko maas courant nee naa leen teg leen ko fii fii bu ngeen fi tegee bu bu wënee deret Sëñ Tuubaa mooy dóor. Mhm. ñun deret Sëñ Tuubaa daw ci leeram bile door yow yego mo bile ma ko ra yego lo bindi do def ko yeren de la ilaha billahi wala taala raj min jibu wa ko ni mala ya mané mam digëté bobu kon buñ déggé sa wax kon dafa melni ñi ngi fatlikou yental muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah parce que amna jamono bo xamné manam bi nit ñëwé di xol pak secret ci mom manam jaam bi nga xam ni saa bu gisee Mouhamed Mouhamed day dem ba maanaam da koy dugal ci leer leer ga koy dugal nag day tax bu génnee képp koo xam ni day laaj yow nga wér lëndëm su ma la diggee kon loo ko mënti digal du ko def moom kon fa lañ jógee saxaaba yi ñu ngi leen jàppoon di leen rey ak ko dóor ngeen ñu bàyyi yoon seen naam Mouhamed bàyyi laa ilaaha am na ñoo xam ne dañ daan jël kon ay xeer yu tàng jër di ko def seen dënn yi ngir lan ngir ñu wedd baru dëgg kon yow bu ñu la déggee da ngaa askanal sa bopp maanaam côté boobu. waaw mu ñu nu jaaxal nag. parce que loolu dañuy dégg ni. yéen la yaa daan defal mu jël ay jaam di leen yóbbu ci yàlla. jël ay jaam tàqale ne nag lu dul dëgg. sant maanaam sant leen dëgg. te dégg nañ ni yàlla dafa yónni cent vingt quatre mille prophètes yonent ku si nekk dara yónni. ngir nga fexe jaam ñi jub nekk ci ñoom dëggu nekk ci ñoom ba képp koo xam ne maanaam jóge na ci leneen lu dëkk ñëw bu benn wet loo dëgg ñoom dañ koy bañ ñu ne Alxuraan tey na ci 25 muy 25 yooyu tànn na juróom ci biir juróom yi ci lañ kenn muy Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne xaatimu nabi wala ko imaam mursaliin kon ñoom ñoo déggee wax jooju yent wax yent yi bir nañ la ci Muhammad la yam te Muhammad la yàlla ak saa joxon bir mom mu do ak gannaay kon yow bu ne degge sa wax bi té lolou yëral lay gëraat akalé kon ma nañ deg loolu nga leer ci tuuti ñu mëna comprendre ba xam yent bob ndax ba te yonente te bi da bu ko bëgg teg yonente xam nga ko indi na ma la lay ay ay alquran ba wax waxaan ci bi ba xam mooy ñooy doon te bi da ndax te bi ko yoni mu ñëw joxe bi li ñu ko yónni woon moo dem waaye li ñu ko yónni dina ko wàcc ku ko yor nag yow yónnee dëgg la. Hmm. sëñ Touba wuute wuute ak Muhammadu Rasulullah kon la feeñal Màkka moo feeñ fii Touba daanañ ko def ba taalibe bi bu njëkk. dóor nañ leen daane seen i kër nangu seen i soxna gis ko bi ñu ko génnee bañ naan taalu sëriñ bi daal di fay fa Touba ak Màkka tey ci rek wuuteeg boobu sëriñ bi génne nañ ko ngir loolu ngir laa ilaaha illallah mu ne leen. bu li ngeen def bu leen ko jooy bu leen ko jàmbat bu mu leen naqar ndax saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci diine te lu nekk daj nañ ko ci mag kon loolu woon démb rek mooy loolu tey ah, bi biñ nga xamee ne maanaam ñoom ñëw nañ foofu songuñu yóbbu dóor a dóor a dóor a ba nga xam ne maanaam kenn ku nekk daal doyal nañ fi dool jàpp nañ ne fi dool ni moom liñ bëgg lépp ma nañ ko wala sonn nañ ñoom mm-hmm. te du dóore bañ doon dóor sonn nañ ca mm-hmm. waaw sonn nañ ca bi nga xamee ne jóg na ba taxaw na ñu daal di jël téléphone jox ma ko ne kii mooy seen jaadi man leen kon kii mooy chef de bande bi. waaw chef de bande la di. mu daal ma waaw boo toppoon sëñ Tuubaa kon coono bi nga sonn dina daal ma ne ko sëñ Tuubaa ma ci gën a sonn fuuf mu ne kon moom ngay jël mbagg ma ne kan jël mbagg gudd sëñ Tuubaa ku roy sëñ Tuubaa koy roy. koo ma ko roy sa koy roy ku yor sa sëriñ koy roy. waaw ci li mu woote ci laa wuy si moo tax wuute wu ma moom. këri <laughs> fa lañ beddee xale yi xale yi ma àndalan fukki junne ñett ñu wisti leen jël ko ci ñoom daal leen bàyyi ñu dem ñëw bu mbaag say taaral te xam ne xale yi buñ demee gendarmerie daañu wax ne jël ci man nangam te kon daañu ko joxe ñu bàyyi xale yi dem yóbbu mu gendarmerie mbaag seen taaral keroog fa lañ fanaan bi ñu yóbbee ci biir weeroon bi ma ne sëñ taala fii jàkka la ndax toujours ko doon xale yi di ngeen nekk dëgër leen buñ leen génnee ngeen gàddaay bu leen rayee ngeen sëyit buñ leen tëjee yéen a ngi xalwa maa sëñ Mor di fanaane faa julli ba bët set gendarmerie ñoom buñ la xoolee xam ne tooñu dañ lay bàyyi ñu bàyyi waat ni bañ xëyee ko ñu wax Mbay Sarr ab tayeer la nee nañ moo leen jiite baa sax dalu ko ñëw ne ne mooy mooy njiitu mooy njiit ndeetigee ñun dóor dóor bii daal di toog taaliba baa ngi toog ci taabal mu daal ne ko waaw ñii dañ fi nekk di woote seen yoonu bopp léegi nag dañuy di génn Touba nangu seen pàkk wax a wax a wax dë waa ji julli ba yàgg bi ci ne teg ne ko yow lii ngeen nii kan moo jël responsabilité bi mu ne ko Cheikh Sidi Mokhtar seen ji loolu. waaw seen ji loolu li Mbaye Sarr loolu la wax Sadio. mooy Cheikh Sidi Mokhtar moo joxe ndigal bu ñu jëlee nag. waaw Touba waaw. mu ngi lii ngay woote ci laa ilaha waaw ak di wane yàlla. waaw ak di xam ne yàlla. waaw loolu rek tax ñu génnal tur. gerte woo jaar dañuy dégg ñu ni da nga fa ànd ak ay bandi. Mm-hmm. ñu tox yàlla ak jinaan sàngara man ki ma woo téléphone loolu loolu la ma wax. Ah, loolu nag mën ñoom bi ñuy daane kër ga ak di ko tas kër ya fa nekk yëpp sax witti nañ ko. foofu sax gisuñu ko chef de quartier ba woo nañ ko mu ñëw ñu laaj ko témoin ñu ko wax sëriñ Abdoulaye mu leen kii de ko gis yaa ko fekk këram te saa boo ko fi fekkee boo ko fekk muy jàngal Qur'an mi ngi jàng kasaayit mbaa mu nekk ci kursam gi loolu am xam ci man. man sama kër boobu dara wër ko ku jaar di bedd ma gis ma doon nëb tuun ma ñëpp ma xam Tuubaa ba ñu cité sama lu ñu fa gis alquran xasaayit dem nañ ba sama soxna fekk sama doom jëwa mu jaabu biñ ko waxee dool sa dool ji dud mun leen maam jaara lu mu rit di def ñu leen ci man xam nañ ko tigi mooy yàlla kenn mu suñu cee xam ay koor yu sewet lañ fa dëkk la borom jàkka yi dañ doon ñëw ci ñun jànkat yi dañ doon ñëw ci ñun ñëpp ba ñu xam lënt nekku ci woote yàlla tax ñu génne ma fa nee na sëñ Tuubaa lañ gëm kon nag kun ci woote yàlla tey may sëñ Tuubaa nag jàngale nuñ ko gëmee nuñ gëmee yàlla la jàngale ñu waxuñu muridu Mbàkke waxuñu muridu Mbusoobe muridu laahi la ñuy wax yàlla tax ñu topp ko wan nañu yàlla bañ gis ko ñu koy wane. waaw waxal nañ ñoom ñu dem dañoo demal di ma laaj daal ñu waaw yàlla sax may na ko waaye dañuy def suñ tubaab ko fi leen moo ko woon suñu sëriñ suñu sëriñ woon ñu ko. gis yàlla jooju jàkkaarloo moom jëfandikoo ci laa ilaha illallah moom lañu wéne du leneen ne la wóor na yow ki lay génne ci loolu ba seen ci yow yàmbaa dem ji kon yóbbu yàmbaa ci xaaral ma mm-hmm. parce que xaaral ma li moo ñu léegi dañoo daaneel suy suy nit. ñu di waaw dañoo dikk bi ñu waxee loolu. Mm-hmm. ne sëñ Cheikh Sidi Muxtaar moo yor responsabilité yi. Mm-hmm. di nekkoon ndax Cheikh moom. Mm-hmm. ma joo jot xam-xam bi. jóge naa suñu kër ànd sama rek ak soxnaam ñu dem ba fekk kër gànna ma ne ko yow de am nga ci man doole yaa ma tudd. te nit ñi dañ fii ñëw naan la sëriñ day wedd sëriñ si. ma bëgg nag li ma nga laaj ma ko ma wax la ci li ci nekk ba keneen bu ñuy wax ak lu bokkut ak li ma wax nga xam ne kooku la ma wax mu ne waaw kay dëgg la kay daal ni ma dangaa demoon fekk laxasaay dafa bàyyi faal di yalwaan topp ab sëriñ loolu lu ko war a la ma ne ko Sëriñ Tuubaa de moo ne laa ilaha illallah képp ku ko wax xam li mu làmboo nga fas ko da ngay dugg àjjana ëllëg fa kullu man sakkaraha muxtaxidaa man de moo naxaar daxaa la jàng dafa dax sëñ tubaa ma jàng ñu ñi ma sànni sëriñ boobu nag sëñ tubaa daa def ci moom boobu mu ne ko ñëw ma sa bopp li baax ma defal ci ma def ko ci yow xamal li ma xamalan moo taxal ma topp ko mu ne ma xamal lépp ma ne ko xamal na lépp ba bët bu set saa bu ma xëyee yokku ci mu ne ma laaj takkusaan ba tibis ma ne ko ko leeral mu ne ma yow sëpp di lu baax na nan ko yaatal moom Cheikh Sidi Mokhtar boobu boobu nekkul xalifa sëñ tubaa booba xalifa sëñ Baara la dégg nga mu ne ma nan ko yaatal te mu indi lu baax la mm. keroog sax bi ngeen génne téeméer ci jox ma ko nag ma ne rek ci jënd jimbo daf may maame saa mu saan sama sikkim bi la tee ginnaaw booba fekk naa ko këram jii nekk Touba ay yoon mm. saa bu ñuy mu téye sama sikkim bi ne bu may tuddee léegi nga mel ni ma ne ko sa sa ñaan nga barke mm. lan ma déyee muy laa ilaaha la ba may tudd moom lañ ma fàttali moom laa yëkkati Allahu akbar lañ di wax daal dañ doon ba mu laaj ma foo ko jëlee man ko seen xaalim looyu mu ne ma fu mu ko jëlee man ko seen Souleymane laa mu ne fu mu ko jëlee man ko seen Moussa seen Moussa sëñ Tuubaa la ko jëlee man ci juróomeel bi laa taxaw booy juróomi soxla bi waaw loolu sëñ Moussa Ka fan joojamaay ku ko gis ku gis ka gis ka ko gis la wax kon nag ñi gisan sëñ Tuubaa ñu gis leen ñoo def ñun lu sëñ Tuubaa defal ci ñoom ñu koy woote muy yàlla léegi bi nga xamee ne maanaam def naa sëñ Cheikh Sidi Muxtaar fekk ko bi ñu dañu kër gi nangu ko ma def Cheikh Sidi Muxtaar wax ko ne ko nañ alxemes dañuy jikk daane kër gi nangu pàkk bi génn ma dëkk bi leeral ko nag liñ jotee di ko di lépp ma leeral ko ko yow mm. ma fekk suñu Cheikh Coro Mbàkke mm. ma ne ko daal moom bëgg suñu Cheikh moo ne ma waxal ma jot si si su ne ko déedéet ni ma waxalal sa bopp keroog maa ngaa ne sama baay bu ñox bàyyi ndëri ndoom ba sëñ Cheikh Sidi Muxtaar sanc këram boobu moo ko doon xeer ya ñoo doon def sàkkete maa ngi a ak ñoom ñëpp waa Ndoukoumane xam xamante nañu sëriñ bi. ma ne ko ko leer ba sëriñ bi ne ma nga ne lan ma ne ko lii lañ def mu ne ma baax ba mu ko jógee ma daal di ñibbi si ñu woo ma téléphone ñoom ma ne Cheikh Sidi Moukhtar dem naa moo ne ma baara ma ci lay la ma wax doomi sëñ Cheikh Sidi Moukhtar. moo ne ma baara ma ci lay ci boppam. buñ ko fekkee ca buntu kër ga. mënut a teeñu daane kër ga. li ñuy def benn xalifa général mënu koo dindi la wax. ku doon xalifa Mbaye Sarr. Mbaye Sarr waaw Mbaye Sarr yooyu sëñ Mawlo Gabo ko jiital ma nga xam naa leen ñun ñëpp. lii la ma wax. ñu ne ma loolu wax ko ma ne du ma leen di jaaxase ak sëriñ man loolu ñoo xam muy comme ñoom benn xalifa général mënul leen dara. sama hmm. yoon nekkul ci doomu sax bu ñëw mu ne doomi seen Cheikh Sidi Mokhtar sëñ Baara tudd Baara Matilé la wax ne buñ ko fekkante buntu kër mu tekkee du daane kër gi li ñu benn xalifa général mënu koo dindi la ma wax billahi wallahi wa taala waaw di ko ëllëg sama daal di jógewaat dem seen Cheikh Sidi Moxtar fekk ko ci këram li ma liggéeyal Cheikh Ndiaye sa borom ñooy ñoo yaral noonu xamal ne Cheikh Ndiaye moo ne ko sëriñ bi gaa yi ñëw nañ fa ba daal di kër ga daal di seng yëpp sànni ko ca mbedd fii tool njaboot bi amul buñ sëñ si amatu ne ko ah ma ne ko waaw Cheikh Ndiaye daal di ma loolu la ñuy lijjanti ma daal di koy jëndewaat ba ca ëllëg wërsëg bàyyi ndëriñ moomu ñew ñu fekkaat sëriñ bi ci kër yi mu fekk kër mag moom ñu demaat kër moom ba moom fekk ko fa ne ko mbir ma ngi mu ne ñu ma leen ak ci fetal dëkk bi waaye yow ci dama ba waaye man ci li te mu moom kuy ci dëkk ba da ngay dem marché bi jaay ak maam yi waaye kuy woote laa ilaha illa taw yi wéetal yàlla jaamu ko muy hmm. setal dëkk ba hmm. ñun ñoo ca jiitu dëkk ba du set xol yee war a set laa ilaha illa mooy setal xol yi <laughs> lanu téye li ñuy dëgëral ba fay wuñ merunu xeexunu xulawul loolu mooy laa ilaha illallah moo ñu dëggal. dëggal suñu xol ak dëggal suñu maasura fay wuñ. da ay mag yi jëm di ay ponk. waaw waaw bu fekkee ay ngi ci ñu xeex ñu dee fa. fukki ponkal. buñ xeexee buñ ñu rey ci te loolu waaye loolu dara baaxul ci dañ tubaa daawul tooñ daawul fay daawul xëccoo te ñun moom la ñuy roy leeram képp moo nekk ñun moom la ñuy leeral jaam yi waaw léegi loolu bi mu amee ah ba ma ko waxee rek fekk gars yi daj nañ ci baraag ko ci benn ma daal di yéeg jël oto daal di ñibbi Ndoukoumane Dieng ma juddoo woon ma fa ma sajjaat ba léegi fa nekk ahlu bi nga xam orang ñoo war a fekk ñi ngi jëlee ay oto Tuuba di ma fa fekk ñu ngi seq laa ilaha illa allah bu ñu ñëwee di yëkkati baatu laa ilaha ñëpp dañu wax xaar lii lañ génne Tuuba loolu ko génne Tuuba loo ma wax laa ilaha illa allah fa kalau nekk ba léegi ndukkumaan jekk kenn nga ba ci kenn leen kenn lu dogal mu am lu mu dogalul am ba lañ man a xëccoowuma dara waaye yàlla daal laay wooteel ku ñëw dinaa la wan yàlla ba nga gis ko xamal la yàlla ba nga xam ko yëgal la ko yëg ko te loolu mooy li ñuy ne rek dañuy gën maa génne Touba Touba moom kenn mënu koo génne kenn. waaw mun te teree def lu baax wax lu baax mun laa ngay def Touba. Touba nag ni ma koy waxee du tabax yaa ndax ñun ñëpp jàng nañu histoire bi sëñ Touba di wër Touba ci gott boobu gisan na Touba te booba taw bi taxaw ko njeere fa nekkan àll la woon kon Touba secret la sëñ Touba jox nañu secret ci barke Cheikh Moussa Cissé la ko jox mu jox ko suñu loxo képp koo xam ne jóg nga ñëw ci ñun lépp loolu wut sëñ Touba ko def ci yow nga def nañ ko ñun ba loolu la ñuy wootee génne nag ah génne ab jullit du ko def bi yëfa ab jullit du génne bi yëfa ci jamono yonent ba tey nañ seet ñoom ñaar ñu leen génne ba naan leen yàqal leer bi ba xam bañ daree génne ba tey ñi daan génne ñi daan génne ñan ñoo ci gën hmm. ñi génnewoon Seydina Muhammad Mbacké ñoo Seydina Muhammad ku gën ñi génnewoon Sëñ Touba Touba moom ñoo Sëñ Touba ku gën kon ñi ma génne Touba maam ñoom ku gën. moom la ñuy waaw nañ nañ jàngat waat bi. maa leen njëkk a génn sëñ bi waa daa xam a jërëjëf naa su ma fi ay naas ilaa rabbi naas. fala maa wasatu ilaa rabbi naas wa taa daf ko kawaani dura naas moom bàyyi def nit ñi ak loxo def ci borom nit ñi. yàlla jox ko ñaari ñu ni fegal ñi ñun dañ koo roy bàyyi nañ fi nit ñi ak ci loxo yi nit ñi dem ci borom nit ñi jox ñu njariñ nit ñi fegal ñu lore nit ñi kenn duñu a ku ñëw ci ñun ñu jariñ la ci baat la ilaa nii la demee demewul neneen waaw génn wuñ ne ba ñëpp génn ñu jubati taw yi daal la ñuy bañ. sànq yooyu rek daf ko ne taw yi lu doy waar la. waaw ndax boo dee yàlla rek a fi ne. waa ji defe wan ne moo fi ne day defe na koo xeeb waaye nag yàlla rek fi ne waaw. taw ngeen boobu daal laajte. waaw waaw kay bu kon daal ñoom kon bu ñu déggee kon dañu leen déggatul. waaw ñu dégg Sëñ Tuubaa boo xam ne mooy bi nga xam ne adduna lay wut ak nga xam ne yàlla yi buñ dégg. moo tax Sëñ Tuubaa déggantiwul nag bokk yi. kon yow fan nga mën a dugg si xasida yi foo xam li nga wax maanaam ndax ñoom ñu dégg doonte buñ la déggul sax keneen ki nga xam ne mi ngi yëngu si yoon Sëñ Tuubaa te leer rek tax koo jóg maanaam yan bind ñu Sëñ Tuubaa bind da koy tegtal ci wàllu maanaam xam yàlla ak wàllu gis yàlla ak wàllu dund yàlla nga xam ne moo ñu gënal Touba gis yàlla moom sëñ Touba moom dafa wax ne moom lakinnama masifatul ali hmm. asxaba min mahribatil hani laa na woo kamal bu ma saxar bi laa ko li mën na sax loolu gis yàlla la sëñ Touba xam wàll yi moo gën xam yàlla ni ko tax mu day nit ñi dem ci di di moo tax neexut a xam day mel nit ñi ñu ne ko yàlla mu ne a dafa mat ba sa laa xeeñ bi laa xabaar yàlla nag duut fenn waaye rek ci borom bët yi ndax alxuraan nee na nekk sa nas foofu laa gisoon ñëpp ci nit ñi duñ gis waaye ñay gis nag sëñ Tuubaa dañuy ñëw yàlla dafa feeñ ñëw fànn boo demee ci mu naaw su dóor sëñ Tuubaa nee na fa kullu man raa si wàllaay ahad fii ay sayin foofu moo tëdun jaxat képp ku xool ci biir mu man a doon nga gis ko te gisoo ci yàlla mii kenn suñ tubaab nee weddi nga yàlla génn nga ci lislaam kon yéefal boo demee ci wakkaana xaqan alayna nasrul muminin suñ tubaab ba mu setee bara ali ilahu min sirkin wa min kulli wa sahadati damin bara ali min ay bi nafsi bi nabi salaay bi tati mun yàlla neen yàlla génn ma ci bokkaale ak bàkkaar sama sikki bakkan yàlla raxas ko mu set wicc daraje njool màkka nee moo tax yàlla mooy nga xam ne gisatuma ku dul moom te gisuma ko ci benn mbir yàlla mooy borom may te mooy gindi kon sëñ Tuubaa moom jàkkaarloo yàlla jëfante doon ko wane loolu la fi nekke wan dawul woon kenn boppam yàlla la woon gàtt ba mu ko wanee seera fay sëgg bi sëgg ak yàlla jaam nga am sëñ sëñ Mbay Saar fi ne nekkan njëriñ naan yàllaa ngi nii ku gisul amoo ay bët kon sëñ Touba yàlla kese la doon woon jaam yi bara ani ilaahu min sirki gisu ko bokk nekk ci bokkaale doo gis yàlla mm-hmm. kon lim setle moom la raxasal ba nga set mu woon la lam gis nga jàkkaarloog loola bokk ak sëñ bi benn gisiin benn teggiin benn yëg-yëg bokk li ngeen di bokk li ngeen di mooy tax ba léegi sëñ bi dëgg dëgg kon murit moom gis yàlla mooy ndamam bu gisul yàlla dese na alwusulu ilallah an laa tara illallah sa yow ko yegg ci yàlla duñu gis ku dul yàlla boo bëgg yegg ci yàlla mu ne seetal ko yegg nga jokk ci moom waaw wa man bi waasin wasal wa man taxallaqa bi ak siin faral sëriñ bi ko bind ñun ku ñu weddi sëriñ bi nga weddi ku weddi sëriñ bi nag boo nga weddi ku weddi yonent yàlla nga weddi kon lii mooy mbir mi jaam ñi nañ jàngaat histoire kuy génn ci yàlla yaa ngi doon ña la génne nag ñoo doon yëngu. loolu rek moom. ñoom kon ñoom lan moo tax ñoom maam ñu ko déggee lan moo tax ñoom déggewuñ ko comme ni ko déggee. ah yàlla nag moo koy defal xam nga yàlla ay séddale alxusuusiya ak jagle la du séeru yàlla du sama jàmbar waaye ba yàlla bind nag lii la dogalal ne sëriñ bi danaa ko bind indi ko dina saa bopp laa ko fi wan moom la fi wane moo ko tëralal mu demee nii ñeneen ña ko weddi it yàlla xam ne bu ma leen bindee bu ñu demee dañuy weddi moo tax am na benn mbir boo xam ne ku ne nga leeral ñu ko xam nga sëñ Tuubaa dañuy dégg ci benn xasay xasaay muy wax ni moom dundam àdduna ba àllaaxira feet na ñu ne ko lan la mu ne moom mooy ilal ji naan ñi mu ne bisam daal dundam àdduna ak àllaaxira lépp maanaam feet na yow maanaam bu fekkee mën nga ñoo leeral loolu ak ñu koy dégg maanaam feetam googu lan moo tax ne àdduna ak alaxira lépp na nga leeral ci loolu tamit. xam euh, nit yàlla yi bu ñuy wax ñoom saa bu ñu xëy déglu naqar yàlla feet yàlla. nit saa bu xëyee muyu yàlla te déglu ñu feet la ci moom. ndax yiw la cay am. xamal la su ëllëgee day sax rek ci àjjana benn loolu koy feet la. sëñ Tuubaa fi nga duggee àjjana àjjana kañ fee dafa fii la nit di duggee àjjana waaw moom daal dugg àjjana wala fi woote Tuubaa mooy la mooy texe da loolu la doon jaay texe na bay jaay texe gi ku ñëw liggéeyal ko wala nga soog nga yox ëddee mu def ci yow texe wala Tuubaa leen di nuyu saa def la bi xidma di taw bi na fa diyaate waaw léegi nag Tuubaa texe ñeel na ab jaamu jaamu bi bund yàlla te namm ci yàlla foofu sax daal di naan ku liggéey sëñ Tuubaa waaye sëñ Tuubaa yoon bi xidmatin aw bi aw fa diyaat loobu moo tubaab bi mudu saadix loobu moo góor yàlla yi muy tàgg ci téere yi la ne ku leen liggéeyal mbaa nga soppi mbaa nga ñooy ëddee texe ñenn la loobu moo la waxut loobu naa góor yàlla yi nag yàlla boole na liggéeyal sëriñ Tuubaa mooy ndaw la am doole dikk laxasaayu Seex Ibra Faal joxal tudd yàlla liggéeyal Moodu Bamba lu mu liggéey jox sëriñ bi boole ko tudd yàlla xolam bi set xolu sëriñ bi set muy liggéey sëriñ bi xolu sëriñ bi set mu tudd yàlla xolam bi set boo xolu sëriñ bi set guy xolam set wécc sëriñ bi def ci moom texe mooy Baay Faal aw yu bi mag moo xam ni dooleem jeex na moo te laxasaay mu bëgg sëriñ bi di ñëw di siyaar sëriñ bi di leen ko ordonnance jox ko laa ilaa la mu koy tudd ak ñëw di siyaar sëriñ bi xolam sëriñ bi set xolam bi set boo xolam set wécc xolam sëriñ bi set guy sëriñ bi def ci moom Tuubaa muy texe te ndaw li nga xam ne am na doole mi ngi liggéey di fayeeku yor ci ay waa këram waaw la muy fayeeku na ciy jël di jox sëñ bi addiya sëñ bi jox ko laa ilaa muy tudd laa ilaa yi di sëñ bi addiya tudd laa ilaa xolam bi seen xolam sëñ bi sedd boo xolam sëñ bi sedd guy xolam sedd wicc sëñ bi def ci moom texe ñett yi loo ci defal góor yàlla mu def ci yow texe bu baax rek bool na ñett yëpp ñu ko defuñ texe kon texe ci nit lay ne àjjana ci nit lay ne nit ko moom ci yàlla lay ne kon Touba texe na amul fu mu yàqu loolu lu ñu jekk di fa génne kenn. waaw mm-hmm. gis naa ma ne Amady Sall yaat Touba la woo suñu maam. Touba la ñu yàqu laa raboo. di teg ci Touba est-ce que man yàqi kar ba. Touba ci nit lay def Touba ci nit lay def. waaw boo dee déglu baax di wax baax Touba da ci yow. Touba ci yonent bi la wàccal suñ Touba doon ko wàcc ci moom ñu doon suñ ci ñoom. ku ñu yëg ko ci yow. yow ñu bañ léegi nag bu fekkee nag dañoo ah kenn ku nekk jébbul suñ bàyyi jébbul lañ ba màggat hmm. a loolu hmm. te ku mu sax toog suñ tubaab nga ko ndax kon ñiñ topp matul suñ tubaab ci ku ma jox sa bopp ku jox sama doom sa bopp ku sa bopp ku ma jox sa bopp la ku ko mënaat na ko wa Cheikh Moussa la waxaat jox ko suñu bopp mu def ko ñu ma ñu ma ñu ngi jëw yàq ñu ngi hmm. jëw bokkaale ñu ngi jëw soxal ñu ngi jëw def ci yow iman ak islam ak islam nga jaamu yàlla ma jaamu yàlla waaw bi moom dégg nañ yi li ci namoon rek nga leeral la ñu moom kàddu leer sell maanaam yàlla ma jàll dégg ko jàll mm. mm. waaye bëggoon nañ mm. jaar ba am lii ngay wasila bu mat wasila bu mat wasila bu koy wut toujours maa koy leer ma ne addina garage la rek am na oto yi fi départ jëm sa wala yu jëm àjjana bu ñu ci garage ba seetal tableau ne bii mooy dem àjjana kon kii dikk jokkoo na yàlla tax nga ne ko dama bëgg a egg ci yàlla la sëñ bi wax Muhammadu Rasulullah yaa Sayyidi yaa Rasulullah yaa Sayyidi inni ilaa Allahi yonente bi yóbbu ko ci yàlla mu ne ko dalaanee la ala muhammadin waxaale ni muhammadin li samati seen rafet bi ñu suñ tubaab yi dama bëgg a egg ci yàlla suñ tubaab jàpp ko dama bëgg a àgg bu la yaa bu la mënee yóbbu ci yàlla ko muur ko def la kon xam nañ ni itam ku jublu ci yàlla la xam nañ ni itam ku dëgg la xam nañ ni ku jub la ku ñàkk caaxaan julli ak xam nañ gis ci moom itam xam nañ nu bokk li ñu ànd bari na lool tabarakallah wante xamuñu ci moom lu ñu tudd yàlla ak jàng jàng yi ak waxtaan ci baat loolu rek xam ci ñoom taalibe bu ñëw daal laaj ko ci yàlla dana la tegtal yàlla dana la xamal yalla dana la dana la yar dana def ci yow jub loolu la xam ci mom bari na nit du bax ñuma andal wanti jikko mom moom ñay neew na ci gaay yi wax dëgg ci njub ci xam-xam ci deug ci bëgg yalla ci bëgg itam xaadim rasulullah begitu ah, nak kudu ko dul doon naan loolu mu wax nag ci Touba mu dañ ko génnee Touba ah mën naa nekk ndax man lu mel nonu? ah daal na ma fa ci samay tànn jamono yi sëñ Bara Gaye nekk ci jal bi samay tànn bi mas nañu màjjaal ba waxtu màggali Touba jot ma woo leen ni leen nañ dem màggali danaa fa daje ak ñoom yàlla dogalee dogalee ñu dem màggali am ñuy wër ci dëkk ñooñu defe naa ñu ñooy toppandoo ko amaan xam naa di leen laaj ndax yéen ci yàlla yàlla yi ngeen di bokk wala da ngeen di gis yàlla ñu yàlla yàlla yàlla lañ bokk ñu jàpp leen dóor nangu ci ñoom fanweeri junni nangu seen ñetti portable téye leen ba mu am ñaari fan keroog teel a pare nañ ma pour naa ñëw def intervenir ma ni bàyyi naa ak yàlla rek bàyyi ndegam yàlla rek la ñuy woote laa taaxusuhu sinatun wala nawmun lahu maa fi samaawaati wa maa fi l-ard yàlla ñu atte ay jaam su ngeen nekkee ci caaxaan yàlla dana atte su ngeen nekkee ci dëgg itam yàlla dana atte waaye ragal naa ni yàlla atte na kon loolu ndem kuy def loolu amaana boo gisee ko toog ci dëkk ba di ko woote man nga man man man nga koo fitnaal kon danaa seede ci ni li tax ñu def nii samay taalibe bi bàyyi sëñ daay ma fa toog di di di di di fa mën nañ koo fitnaal mën nañ koo itam génne wante itam nag wax dëgg yàlla Cheikh Moussa day njàmme borom daal dafa dañ ko ni woon kaay ñu may la loo bu mag ci Touba nga dëkk fa dëkkal fa say taalibe njàmme ñi leen Touba de suma keur serigne la ci jamono ko serigne abdullah ma ko xol Touba sama keur serigne la sama keur serigne nag man duma ko jéem a dëkk damay dem ca tool ya dëkk ca tool ya di fa liggéey maag samay taalibe lépp loo xamante ne liggéey naa ko ca tool ya rek ma indi ko ci keur gi di Touba ndax Touba keur na fenen foofu Touba ay tool laa ko jàppe kon nañ bàyyi ma dem ca tool yi liggéey yi lu ma am ci adde indil ko sama sëriñ fii ci kër gi di Touba sa Moussa loolu la ko biñ génnee mu ni Touba day li tax xajuma ko mu ni Touba ron ker na ron ker na kenn du ma baax kon suñu Cheikh Moussa gisoon na ci ni lii tàng na tàng boo xamante ni ak itam sëriñ su bare bare bare dañuy fiire ci taalibe yi ak beneen sëriñ ba tax na soo wootee ay nit di la topp loolu ñu ñu ñu kilifa yu bare bare xajoo wu ko ba tax na loolu dana indi euh, yëngatu yu bare bare bare waaye Cheikh Sidi Ndiaye de li ñuy seede ci moom mës ta wàcc aw yoon njàmme borom daara itam mës ta wàcc aw yoon Cheikh Moussa de képp ku ko yeb rek ci taalibe bi nga ko yeb moom day moom dafa li mu waxoon mooy yàlla laay wane yàlla laay xamle jaamu yàlla xam xamle damay xamle yàlla di xamle jaamu yàlla sama sang ba Serigne Touba njàmme mooy wax sama sang ba Sëriñ Tuubaa jéego ya gaaw na bar na waaye damay topp ci moom rek parce que waaye yéene fu mu teggee rek su geesoo gis ma aw ma benn wasiila bu dul Bàmba aw ma benn baat bu la lëjjee bu dul baatu laa ilaaha illallaah mu ne wasiila kon Bàmbaa ma ca bay jaamu yàlla nag baatu laa ilaaha laa ma ca bay lëjjee ci lu may dunde maag sama njaboot mbay moo ci doy Cheikh Moussa foofu la tegoon tànkam wasiila Bàmbaa ma ci doy lëjjee mbay ma ci doy jaamu yàlla baatu laa ilaaha ma ci doy jàng nañ ni kenn nag du sama borom ku dul yàlla waaye kenn du sama wasila rek ku dul Bàmba ku ajul asamaan fii tàllaloo suuf doxaloo guddeeg bëccëg doxaloo guddi wi doxaloo jant bi doxaloo weer wi doxaloo noor ak nawet doxaloo góor a jigéen jàpp ma la ngay sama borom kii def lii mooy sama borom waaye wasila nag bi nga xamante ni moom laa jox sama bopp ba jàpp ci mbiccam ba àgg ci yàlla man caa àggale jàpp kooku mooy Xaadimu Rasuul radiyallaahu taala anhu loolu la Cheikh Moussa mas di wax taxaw ci dëgg ak njub bi nga xamante ni mu ngi fi dund way juróom nekk fi way juróom da ko daan yónni bu bare ci maam Xaadim Rasul jamono bi way juróom bàyyi ko itam toujours daf daan dem ci xalifa Serigne Touba bu di ma sa nekk ziare ji la la bayal la tool ànd ak yow ba ci dëkk la mu ànd ak kenn ba ci suñu fàllu ba ci jamono sëñ Abdoul Ahad ba ci jamono sëñ Saliou nii ba ni mu wàccee ab liggéey tabaaraka kon nag képp ku ñu li muy woote du ak murit yow kay yaa xamagul lan mooy murit murit mooy àgg ci yàlla minallaahi illallaahi ay na muridullaahi loolu la suñu tubaab ci yàlla bàyyi ko ci yàlla dellu ko na ma dellu ci yàlla ndax am sax ma tiijaan itam loolu rek la woote woon ndax am Seex Abdul Xaadir Jilaani loolu rek la woote woon ndax am maam limaamu mbëkk dégg mi loolu rek la woote woon limaamu bi ñu jàngul te moo tax tarixa yi benn tarixa la coow li li ko bareelu ñàkk a xam lu mooy yoon tarixa yi loolu moo ko bareelu ba noonante di ci am bañante di ci am waaye ñun ñëpp bu ñu bëggoon xam tarixa xam ne kilifa yëpp benn euh, jubluwaay lañ amul muy yàlla genn kilifa doonoon seen tur mooy Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñooñu ku jaar ci seen yoon dóor la sa bopp jël ñu jaar ci yoon bu ñu réeroo rek li yàlla wax dama ko bàyyi mooy wa'tasimu bi hablillahi jamii'an wa laa tafarraqu képp ku xam yàlla nag ba àgg ci yàlla dootoo iñaan dootoo rëy dootoo bañante koo ni gàtt sa bopp ngay gis ci moom nga bëgg ko ngir jëm yàlla ni nga bëgg sa bopp xol bu la la ma xam moom lu dul ku ko am ci adduna a topp te amoo ko ci moom ma xam yàlla mu amal la mu loolu ba nga am ko xamal la yàlla yëgal la yàlla wan la yàlla tudd loo la yàlla la yàlla jaamu yàlla ni dann yàlla ku dugul yàlla ba am ngërmande yàlla wasiila woo Baye Cheikh Serigne Ndiaye loolu ci la nekk nekkul ci leneen naanul sàngara tuxul yàmbaa tooyul jaaloowul yàqul alal kenn tiriyaawul kenn Touba mën ngaa wër Touba laajte ba Touba dak doo gis ci ni Serigne Ndiaye Baye Cheikh Serigne Ndiaye lekk na sama ñaari dërëm du kuy lekk alali jaamu ndax man jaxasoo na maa moom léegi xam naa ko mu wér a wér bi nga xamante ne nag àgguñu fii bi histoire bi amee téléphoné naa benn xaritam li ma wax mooy ay bandi lañ kooka tooy na sëriñ daal say bàyyi saf sëriñ daal mosul dajale ay bandi këram waaye bu bu mën na sax dajale ay bandi këram ndax ci baax ku bon lay wut waa wutal ay bandi ndax ñi bandi bon lañu dañoo xamul ñi ñu wàcc ñëpp jël ko yaa mën a defar ñu yàqu ñi na nag ku yàqu nañ la ko jox nga defar ko koo defar jébbalaat ko boromam mu baax lii mooy waru garu sëñ sëñ warta gis ci ni ku bon dañ laa war a wàcc yàlla wàccul kenn ku bon ku ne dañ laa war a baaxal jubbanti la ju delloo na ci yàlla ngay ko jub xocc nu delloo la ñu liggéey loolu mooy suñu ku ñu ku agressé dem ci ku ñu sànni daal mu jël pour ba mu set jubbanti ba mu jub delloo ci yàlla borom wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf ah sëñ Amath jërëjëf yow itam jërëjëf sëñ Pape yow mi nga xam ne yéen a doon kii yow journaliste bi tabarakallah jërëjëf ah, ah. Ah, barakallah yàlla yokk leen waaye liggéey ji daal boo xamante ne tiituñu ci ñun incha allah rabbil alamin fas nañ ko yéene kàlla ba keroog suñu bakkan di tàggal ak suñu ragaluñ ku ñu rey ragaluñ ku ñu mbax ah. ragaluñ ku ñu bëgguñu ku ñu ku ñu jàpp bëgguñu ah. alal bëgguñu bëgg bëgguñu aw tur bëgguñu ku ñu sukk bëgguñu ku ñu maama jaam xolam sell ku dee ah, yàlla bay loolu amu lañ ci jàmm yàlla ko yàlla boole defal allahumma salli ala badr tamam allahumma salli ala nuuri salaam <laughs> allahumma salli ala nisa salaam allahumma salli ala safi wa salaamun